jërë jëf euh, mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan Lac Rose TV tey jii nii nag waa Lac Rose toujours rek li nga xam ne moom mooy seen fem Lac Rose TV ñëw si soirée bi nga xam ne moom moo jee mu ngi koy def fii si hôtel Palal tey le 29 septembre ma ne moom moo jee gis ngeen ko marraine bi nag nekk ñi nga xam moom mooy les jeunes dames Sali si bi nag nekk présidente bi sama gars yi ñu dugg si biir xool li nga xam ne moom la moom moo indi. ndaw ak la mu miin su ko gisul dafay wit yaa ne sama xol sama mbiri damay jaaxle kaay ñu juboo kaay ñu juboo sama mbiri sama xol du nii koy samay doom di ni mbëreetaan lieu boo xamee ni nit ñi mën nañ fi tase def fa spectacle donc ça que ni en tout cas tey Momo Dieng toj na fii. kon yow la yow la yow yow la yow la yow la yow la kon yow la yow la yow la les jours dam yéen la yéen la yéen la kon yéen la yéen la yéen la yow la yow la les jours dam yéen la yéen la yéen la yow la ma waaw xadi balla gay kii nag sama géwélu juddu la xadi balla gay sama soppe dundal ba mu neex ah. waaw ajidu be tema dilawel baale bu ko xadu ajidu be xadu balla gay xadu balla gay Lac Rose TV noo ko gisee waaw Lac Rose TV di la ñaan mu nekk télé bu mag rek maa ngi seetaan seen affaire ci ci ci YouTube bi ku doon di jootu mbéy kay jaw yéexu kay jaw di jaw kii mooy Babacar Seck ànd ak si bi tubaarkàlla ànd ak waa ñàkk ñëpp waaw jërëjëf du ma ci sori euh, xanaa am kontaan rek euh, ci lii Ibrahima def jël programme bu mel nii tuddee ko lii seen kontaan ci lool dafa kontaan yëpp monsieur le moo ñu yebal pour ñu ñëw comme niñ ko naan defee rek ñëw ànd ak yéen ci jotaay bi

jaajëfal parce que maay seen présidente mais dama leen a woo ñu bàyyi lu ñuy def ñoo accompagner ñu ci soirée bi ma leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di gërëm nag waa département Tëngéej parce que jeune dame département dafa ñëw maman xari mii ñëw ànd ak ñoom ak ñoom fas si kone kon maa ngi leen di remercier bu baax a baax samay naataango yooyu ñoo gisee Lac Rose TV mi nga xam ne tey moo la tàllal nii waaw la Rose TV moom suñu chaîne la ndax ki ko ndaw la ñu bokk dëkk bi muy yëngu ci développement dëkk vraiment kontaan naa loolu tey teew fii hôtel Palal passé ak soirée bi suma fans yi nga xamante ne ñoom laa fi fekk ak ñëpp. noo gisee Lac Rose TV aussi nekk fii si gox bi. waa mais maa ngi leen di suivre bu baax ndax euh, lu laal département de Rufisque rek dama lay bëgg te Lac Rose TV ñu ngi def liggéey bu am solo kon vraiment maa ngi leen di bëggee ca kaw ca kanam.